présence naturelle la sunu corporation moo nekk en cause euh, mu nekk bés boo xamante ni aussi bésu hommage la en même temps rendre hommage ñi nga xam ne ñoom ñooy les précurseurs les francs mooy ñi nga xamante ni ñoo tax tey jii xëy na métier bi avancé yi ci am am ci parce que xëyul rek tab bi c'était un travail de longue haleine parce que au départ parti unique moo fi nekkoon benn média rek moo fi nekkoon média d'État ñu dem ba ci biir affaire bi pluralisme am ñu commencé tijji loolu dama impliqué leneen lu bëree bëri li muy impliqué nag mooy enjeu bi tey mooy nan la ñuy def ba ku fi ku fi ku fi ku fi ku fi nekk journaliste Sénégal mën a jëflante ci wàllu xam-xam ci wàllu nekkin. si wàllu dignité tout court ak sa naataango ba nekk Maroc sa naataango ba nekk Canada sa naataango ba nekk États-Unis sa naataango ba nekk France donc loolu mooy yëkkatiku bi donc la formation mais surtout toppatoo bi nga xamante ni moom la ñu toppatoo une fois ñu nekk sur le terrain et je pense que ça c'est extrêmement important qu'il faut pas négliger waruñu ko négliger lu ñu a bàyyi xel la parce que métier la boo xamante ni aussi rapidement nga livrer say vulnérabilité waaw ah, parce que métier la boo xam dañ la war a ñàkk je pense que dañu soxla garde-fou dañu soxla ñàkk et il faut pas le négliger bëri na on a d'excellents journalistes on a d'excellents techniciens de l'information et des communications le monde des médias c'est un monde magnifique boo xamante ni ñu bëri ils ont envie d'accompagner le processus de développement du Sénégal donc il faut que ñu bàyyi leen xel nag au même titre que tous les autres acteurs yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal monde a galéré presque. Rares sont les reporters qui, à un moment donné, n'ont pas Moi-même qui vous parle, pendant longtemps, j'ai fait du bénévolat. J'ai travaillé, mais aussi, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on arrive à trouver une intelligence sociale entre l'entreprise entre l'entreprise et l'école. ni xale bi buy génn école dina am nga am su ñëwee duñ koy obligé di ko ramloo pour mu jàngaat parce que d'habitude loolu mooy nekk alibi bi dañ naan la non tu es métier il faut que ñu nga jël temps accommodé wu acclimaté woog il faut que ñu trouver une intelligence ba nga xamante ni bu nit ki di def première année dina mën a am 60 pour cent de théorie pour cent de pratique en deuxième année mu mën a am pour cent de de de théorique pour cent de pratique et en troisième année qu'on puisse le mettre dans les conditions optimales d'une rédaction nga xamante ni les responsabilités sont partagées naturellement médias yi ñi ko yor c'est des hommes d'affaires aussi ils veulent le profit c'est des chasseurs de primes xaalis la ñu bëgg donc d'un côté mais pour man aussi j'interpelle le législateur il faut que le législateur aussi mooy yoon yi mu def mu dëppale ko ak jamono su ko dëppaleeg jamono ba pare mu saytu ko donc l' encadrement aussi de la loi par rapport à la loi et j' interpelle aussi l' inspection du travail pour que mu mën a bàyyi xel ñi nga xamante ni aussi ñu am leen parce que bëri na tey ay jeunes reporters yoo xamante ni qui vivent une galère extraordinaire dans les médias loolu warul am boo bëggee journaliste bi def liggéeyam dëgg warul nekk di def euh, kii donc ya a y' a plusieurs formes de violence dans les médias. président du Diop di wax ne a réguler presse en ligne est-ce que loolu yomb na dina il faut mettre autour de la table tous les acteurs tous les acteurs parce que sunu développement euh, si wàllu médias sociaux dafa jiitu législateur bi. donc le législateur doit faire aussi un, des pas en avant pour mën a ñu ko encadrer mais que tous les acteurs puissent discuter pour trouver des solutions moi je plaide beaucoup plus en faveur de ça d'une que tous les acteurs soient autour d'une table discuter pour trouver waaw concertation qui est qui est différente nag euh, les concertations c'est pas forcément dialogue ñun souvent dañ koy jaawale moi je plaide beaucoup plus pour des concertations waaw d'abord dama am mais en même temps am mbetteel ñi nga xamante ne ñooy revendiquer le titre de journaliste bi yeewoo ci réew mi ñooñu bu ñu ñëwoon fii kenn du fi xaj donc mobilisation bi waroon naa gën a yaatu lii ndax Sénégal li fi nekk ci ay journaliste ëpp na lii fuuf damay faral di wax ne bés yëpp bu ñu tolloo woon kon fàttaliku du am parce que bés bu nekk yàlla def na ci loo xamante ne def ko ci beneen bés rawatina nag bu ñu ñëwee ci li ñuy tuddee journalisme xam nga journalisme métier de liberté la. les monteurs les métier de liberté la. mënoo koo def sans liberté. démocratie pratique de liberté la. donc ñoom ñaar ñooy ànd mooy li alxuraan li wax ne lu ne yàlla nee na double exemple laa ci def beneen bi journalisme dans la sourate les appartements yàlla moo ne ni koy defee da nga mooy da ngay dem ci source bi. loolu li ciy déggee mooy liberté ak responsabilité ñoo bokk ndey ak baay. beneen bi aussi mooy Sénégal am na liberté mais temps yi le journalisme en tant que tel pratique bi dañ ko sayute parce que boo xoolee euh, en mars 2021 li fi xew loolu dëgg du yoon ay locaux de journalistes yu gars yi attaqué ay auto journalistes yu ñu taal yaa ngi dégg ay journalistes yu ñuy menacé te liberté moom boo ko génnee ci journalisme journalisme amatul. te dañuy faral di wax même si c'est pas constitutionnalisé bon à travers l'article 8 de la constitution on parle de liberté mais le pouvoir du journalisme le journal le pouvoir de la, de la pratique de journalisme kenn constitutionnalisé ko alors qu'on parle de quatrième pouvoir l'un à l'autre moo xam pouvoir la moo xam du pouvoir mais war nañu fexe ba nga xamante ne bii la pratique du journaliste mu ànd ak liberté. liberté doo xëy xëy rek am ko nii nii déedéet chaque jour da ngay xeex donc lii da ciy baax ba nga xamante ne bii beneen yoon bu ñu ko wootee en réalité nañu fexe ba nga xamante ne bii képp kuy wuyoo journaliste muy patron de presse muy technicien des médias et cetera ñu wan suñu doole wane suñu kattan wane aussi en réalité suñu naqar parce que li xew entre le 3 et le 8 mars ci réew mi mu dal ci ay journalistes du dëgg du yoon beneen bi gendarme bi nga xamante ne moo war a jiitu dans ou bien par exemple pour l'application de la convention état bi la convention bi collectif bi voté nañ ko décret d'application yi boobu ba léegi ñu ngi xaar en réalité loolu gars yi dañ ko war a lijjanti beneen bi le premier professeur dans l' accompagnement de la formation c' est du Sénégal parce que ñun ci mi lañu bokk ci njabootu Sénégal lañu bokk donc dañu war a def de telle sorte que démocratie di respirer démocratie nag fu muy respirer fu muy nooyee pratique de journaliste warata am censure warata am xoxatal warata am ay nappaate ñu fexe tamit ba ñi nga xamante ne ñoo ne ci organe de ñu am ay traitement un bien-être boo xamante ne bii du ñu ñee seen benn moroom loolu mooy tax bu buñ la geree du sotti wala buñ la jéemee ger du sotti mais.